kon ci fàttali ne li ñuy waxtaane mooy ëttub àttekaayu suñu boroom subhaanahu wa taala te ñu wax ne mooy ëttub àttekaay boo xam ne ku ne da nga ca jaari ku ne suñu boroom dana la ca àtte yonent bi sallallahu wa sallam wax na ni kenn ku ne danga nga taxaw wax ak yàlla yàlla régler say jëf te du am intermédiaire bu dox seen diggante du am interprète boo xam ne yàlla day wax mu lay jottali nga waxaat mu jottali ko wa kulluhumu aatihi yowma alqiyamati fardan kenn ku ne danga nga suñu borom ba mel ne yow rekk la bind mbokk yi kon ëttu attekaay boobu la waxtaane te ñu wax ne bari na ay jagle yoo xam ne wuute na ko ak ëttukaat attekaay yi ñu xam fii bokk na ca ne foofu de li ñuy wax partizan par parloo amu ca bokk na ci jagle yooyu ne foofa kenn du fa ger kenn bokk na ci ne yàlla miy àtte bu àttee ab àtteem kenn mënu kaa dindi kon bu attee amul fenn fooy mën a dellu day dogal ab atteem xëy na euh, tribunal yi ñu xam léeg-léeg sax bu fekkee ku yoon teg loxo la bu ñuy ñëw dina am ñu ko indi bu dee koo xam ne ba muy jóge ci tribunal bi dañ koo war a denc dana am ku ko yóbbu waaye foofa day suñu boroom jaam yamuy digal foofa laa yaasuuna allaha ma amarahum wa yafaaluuna ma yu'maruun suñ boroom ne benn kenn jenn jëmm juy ñëw maaha saaiqun wa shahid kenn ku ne da am malaayika bu lay wommat mu mat a bàyyi xel li ñu wax léegi ne ku ko teqale ak li ngay dund fii tey yaa ngi ci njumte moo tax ba gëm gëm atte booba gëm bisu atte booba loolu moo tax mu bokk ci ponki ngëm al imaanu bil yawmil axir ndax ku ko ku gëmul sa gëm du mën a wér looloo tax itam niñ ko daan fàttalee mu bari ci xadis yoo xam ne day wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir dafa lié dafa jege jëflante bi ngay jëflante transaction bi ngay def donte dafa am ñaari dërëm yu ci ëpp waxtu wi nga koy def bàyyil xel ne ñaari dërëm yooyu danga ko taxaw lijjantikook suñu borom subhanahu wa surfacturation bi ngay def waxtu wi nga koy def xamal na danga nga taxaw ci péncum suñu boroom ci cour de justice suñu borom yàlla lijjanti ko ak yow moo tax bis boobu ku ko teqaleeg jëf yi ngay jëf rek yaa ngi ci lu warut kon atteb suñu borom dara du ko dindi bis boobu cour de justice boobu lii de mën na am xaw na ko nuru ak yi ñu xam fii mooy dana am ay seere doonte seere yi mën naa mën naa wute fii léeg-léeg ne day am témoin yu ñu war a déglu walla témoin à charge xam nañ koy tuddee foofa nag am na ay seere yan ñan ñoo fay seere foofa ëttub attekaayub suñ boroom ñan ñoo fay témoin yi mën nañ ci jiital moom yàlla subhaanahu wa yàlla de dafay seere yàlla subhaanahu wa taala bokk na ci ñiy témoin mbokk yu témoin boo xam ne wa huwa aqrabu ilayhi min xablil warid témoin boo xam ne fu ñaar nekk moo leen ñetteel témoin boo xam ne li nga fésal nit ñi xam ko wala li nga tëju sa def ko xam na ko kooku day témoignage am mën naa bàyyi xel inna allaha yafsilu baynahum yowma alqiyamati inna allaha ala kulli cheyin shahid yàlla moo teewee lépp moo seere lépp subhanahu wa taala wa kafa billahi shahidan yàlla rek doy na seere subhanahu wa taala di boo xam ne bokk na ci témoin yi yonent yi salawaatullahi wasalaamuhu alayhim dañuy seere ay témoin la nekk wa yowma nabaasu min kulli ummatin shahidan alayhim min anfusihim wa jinaa bika shahidan ala haula yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëttu attekaay booba day cour de justice bu suñ borom boobu day yonant bu ne yàlla dana ko seereloo ci aw xeetam ndax lam bokk ca ñoom ak lam ko yebaloon ci ñoom mu teg ci ne yow yonant bi sallallahu alayhi wa sallam aw sallallahu alayka wa sallam yàlla ne ko dinaa la indi nag nga nekk seere ci saw xeet kon témoin boobu itam walla yooyu ba wuute nañ ak témoin yi ñu xam fii ëttub attekaayub suñu borom boobu nga xam ne kenn du ko wuute xool leen xeetu seere yi mu am xeetu témoin yi mu am mooy nit ki doomu aadama bi ay cëram sax dañ koy seere ma nit ki sax day seere boppam kafaa bi nafsikal yawma alayka shahidan yow sax mën ngaa seere sa bopp waaye cëri doomu aadama yi ci témoins yi lañ bokk yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim yàlla nee na bis bi nga xam ne seen làmmiñ yi dina leen seere seeni loxo yi ngeen daan jëfee dina leen seere ak seeni lox seeni tànk yi ngeen doon doxee ci lépp loo leen doon jëf al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bis boo xam ne gémmiñ la lañ lañ xamee woon wax yàlla da koy tëj bu ko defee say loxo say tànk say cër di seere ana mbokk yi bu loxo waxee ne man maa signé woon liite du dëgg ana lees ci mën bu tànk waxoon ne man maa jëm ci barab sàngam te waruma fa woon dem tànk yi ne man maa doxoon jëm fa ana la ci la lees ci mën mbokk yi bokk na ci seere yi foofa malaayika yi dañuy seere maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid amul lenn lu nit ki di mu wax ko te ak atiid bi ànd ak moom duñu ko seere wal malaikatu yashhaduun malaayika yi malaayika yi borom yi dañuy seere téere jëf yi bokk na ci témoins yi bis boobu inna nahnu nuxyi lmawta wa naktubu ma qaddamu wa aathaarahum wa kulla cheyin axsaynaahu fi imaamin mubin lenn lu ne la nga la la nga jëf bi nga fi nekkee ak la nga taxawaloon nga jëm nga jóge fi muy wéy di jëf moo xam lu baax la wala safaan lépp yàlla peeg na ko bind na ko ci loo xam ne dara du ci manqué mbokk yi suuf si ñuy dox sax day seere bokk na ci témoin yi yow ma isin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka aw xaalaha kon mbokk yi nañu xam ne li ñuy seere bari na de ñu bàyyi ko xel témoins yii day duñu parparloo jamono sax dafay seere yonent bi saa sallam waxoon na ci xadis ne bis bu xëy dafay woo doomu aadama bi ne ko mbindeef bu bees laa de boo xam ne bu ma demee du ma ñëwati kon na nga xool li ngay jëf ci man ma mën la ko seereel ëllëg kon day seere alquran day seere day nekk xujja ab lay alayka aw laka lay bu lay seereel wala buy seere ci sa kaw bis bu mat a bàyyi xel bis bi suñ borom di taxawal balance am yooyu nga xam ne ci dëgg rek lay taxaw wal wasnu yawma yawma izinil xaqu lirrahman lu mat a bàyyi xel la bis la boo xam ne bu yàlla àttee amul joxe caution pour génn amul ranson booy joxe fal yawma laa yuxazu minkum fidya dara du la ci génnee xanaa yërmande yàlla suñ borom subhanahu wa taala intervention nag am na muy ashafaa rammu ci ndigalu suñ borom yawma idin la tanfau shafaa illa man azina lahu rrahman wa radiya lahu qawlan kon mbokk yi tribunalu àddina yi lu mu ñàng-ñàng ña koy wattu lu ñu ñàng-ñàng luñ armé wu lu pression yi bari bari enjeu yi lu mu doy waar doom doy waar war nañ xalaat ne daañ bokk ñëpp nag teew benn juge am war ñoo juge ñun ñëpp muy ëllëg ci ëttub àllëg attekaayub suñ borom boobu subhaanahu wa taala yàlla nañu fa yàlla defal man yërmande wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi